leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi leen di dalal jàmm di leen balu àq di leen massawu ci coono yi di jégglu ci yéexu tàmbale jataay bi ngir bëggoon ñu bari rek amoon yéene teewe ko te xawoon a guddee ñu mën a agsi mën a teewe jataay bi kon ñi ngi leen ci jégglu bu baax a baax di leen nuyu ci turu Serigne bu Bousso mi nga xam ne mooy njiitul mu muxaddamatul xidma di jël nuyoo boobu nag di ko teg ci loxo yi jëwriñ yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi euh, muy alxaaji Baara Diop ak alxaaji Moussa ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teewal mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu yaxantu ci fànn gu mën a doon kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziyaar euh, dellusiwaat nañu nag ak yéen ni ñu ko baaxoo defee ba ñu jotee ndigal li ci Cheikh Salih Mbacké yàlla nañu yàlla taas ci barkeem boobu ba léegi ci taxawu liggéey bu am solo bii nga xam ne moom la ñuy yàgg a taxawu ci weeru koor wi te da koy defee ci barab bu tedd bii di jumaay Touba ànd ko mbokki taalibe yépp liggéey boobu nag naka jekk buñ ko jubee daa daanañu am ab jataay boo xam ne daañu xayma liggéey bi ñu weesu woon lañ ci jotoon a def ak nag doog a jublu ci waajtaayu liggéey bi ñu dëgmal kon loola rekk mooy sababu ak jotaay bii euh, kon incha allahu taala noonu ñu ko waxee noonu lay deme ci njëlbéen gi dinañu jox sëriñ Abdul Ahad Bousso Muxtaar mu leeral doxinu liggéey bi nga xam ne moo amoon ci at mi weesu muy ramadaan deux mille vingt et buñ ca noppee nag doog a nag dëgmal programme bi nga xam ne moom la ñu war a dugg ci weeru koor wi ñu dëgmal incha allahu di ñaan suñu borom àggal nañ ci ci bismillahi rahmaani rahim ba ñu génn ceeg jàmm ci alhamdulilahi rabbil alamin te mbooleem liñ ci doon séentu ci ay euh, xéewal di ko séentu ci nangu liggéey bi suñu borom defal ñu ko ci barke borom barab bu tedd bii di laa Mawlana Cheikhul Khadim euh, xam naa bala maa jox sëñ Abdou Lahad Bousso kàddu gi rek nege ne si daaw toogoon nañ fi di fàttaliku ay jàmbaar yoo xam ne ñoom ñoom ñoo seqoon liggéey bi te yàlla dogal ñoom ñu jiitu ji ah gannaaw nag ñoo seqoon liggéey bi te ñu jiitu ji ñun ñiñ fi bàyyi war nañ leen a fàttaliku bu baax a baax ñaanal leen ren noonu lañ ko fas yéene defee fawuñu wut ay dog ñaanal ñi nga xam ne àndoon nañoo ak ñoom liggéey bi te ka ca jiitu di sëriñ Mame Mor Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne moom la sëriñ bi daan yebal ngir mu ñëw di ubbi si liggéey bi euh, daaw ku xool image yi nga xam ne mooy liggéeyu daaw bi di nga gis kàddu yu am solo yi nga xam ne kàddu yu soññee la woon yu mu yëkkati woon ci barab bi ngir soññ mbokki taalibe yépp ñu tàbbal seenu ñaq ak seen jëf ci liggéey bi kon sëriñ Mamor moom moom Cheikh Mamadou faadal danañ ko ci yéene waale waaye yéene waale ji jàmbaar ju mag ju fesoon joo xam ne waxtu wi daaw mi ngi woon ci jataay bii di alxaaji xaadim moom itam daañu ko fàttaliku dolli ko ñaan ak mbooleem ñi nga xam ne ay mbokki taalibe lañ yu daan jëf ci liggéey bi te tey suñu boroom moom leen ñu wuy ji ko kon ñun ñu fi bàyyi bala ñoo dugg ci liggéey bi rek ñu yëkkati ay ñaan lu waaye mën a jàng ci lexlaas ci euh, gannaaw fatiha fukki lexlaas ak benn ñu ñaanal leen ko waaye itam fàttalikuwaale itam alxaaji Moustapha Gajaga mi nga xam ne moom itam euh, jàmbaar la woon lool ci liggéey bi ba jataay bu mel nii saa yu agsee ñi ko xam xam pastéefam euh, image am danañ ko gis bu baax a baax a baax ci biir jataay bi moom itam ñu fàttaliku waale ko ñaanal ko ak Serigne Moustapha sàmb moom itam di jàmbaar lool ci liggéey bi sëriñ Serigne Moustapha sëñ Moustapha Massamba di jàmbaar lool ci liggéey bi moom itam ñu fàttaliku ko nga xam ne mën nañ ne ci ñi ñi njëkk a tàbbal alalam ci liggéey bi ci la bokk te booba ba léegi ba nii mu fi jógee ak njabootam wuutu ko ci wuñ seen tànk kon ñooñu ñëpp nañ leen fasaale ci liggéey bi ak mbooleem koo xam ne rek xëy na xam nañ ko wala xamuñu ko te suñu boroom moom ko ak mbooleem jullit ñi bismillah waaw bokk na ci ñooñu Euh, sëriñ abdu Diop mi nga xam ne euh, sëriñ Ibrahima Diop mi daan indi kopp yi nga xam ne moom lañ daan jëfandikoo muy kopp AGT yi moom itam ci ñooñu la bokk euh, kon niñ ko waxee rek dañuy daal di sóobu ci liggéey bi jox sëriñ Abdou Lahad Bousso Muxtaar mu leeral liggéey bi nga ni mu demee woon daaw bu ko defee xam naa daf koy tënk par ay buntu rek ndax xëy na waxtu wi diggante timis ak gee jege na jege goo xam ne xëy na détail yu kii yi du ci du ci du ci du ci xaj bu ko defee ku ci bëggaat ay leeral rek bu delloo ci jëwriñ yooyu Serigne Moussa wala sëriñ Baara ñoom ñi ngeeg rapport yi dañ ko leeral lu ci mat lu ci mat a leeral wala lu lu leerul ci boppam kon Cheikh Abdou Lahad bismillah alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa ummatihi ajmaiin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu kilifa yu tedd yi teew ci jataay bi di leen ziyaara bu baax di leen balu xaq te di leen baal àq di ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal di tàmbali rek ni ko sëriñ Abdoulaye waxe léegi di ñaanal suñu kilifa yu baax yooyu nga xam ne ñoom ñoom ñoo daan ànd liggéey bi te tey ñu jiitu sunu borom dolli leen dool dolli leen njéggal yaatal seeni bàmmeel xaare leen àjjana te teg loxo ci seeni njaboot wax dëgg yàlla mu ne si toog fii tey jii te sa xel demul ci sëriñ Moustapha moom ma Massamba te ngeen xam ñun ñëpp ne ba ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi mu di ko ànd ak noonu xelit mënut a ñàkk dem ci sëriñ Mame Mor moom seex Mouhamadul Fadil mi nga xam ne Serigne Moustapha moo njëkkoon di ubbi si liggéey bi daan ko teg ci bi mu demee ba yaramam mayetu ko ko mu yebal ñu Cheikh Mouhamadul Mountakha boobu Cheikh Mouhamadul Mountakha sax ay magam a ngi fi waaye mu jox ko cër boobu. wax ne na seet ku ko doy mu yebal ko dana ko yebal ay njabootam ñu ànd ak moom sëriñ Muntaxa yebal sëriñ Maam Moor moom Cheikh Mahmadul Fadil mu di ko jiite ba daaw rek fekk na ko sax ci ak di lu ko jiitu waaye teewul moo ko moo ko jiite si fii bis bi sëriñ Muntaxa waroon na ñëw seet si liggéey bi itam te yàlla dogal mu am gan gu ko bett gu jege woon Mauritanie di kilifa gu mag di seetu Cheikh Sidiya gàllankoor ko ba te fekk mu joxe woon kàddoom ba noppi moom la yebal mu ànd ak Cheikh Mouhamadul Basir moom Serigne Abdul Xaadir ak yeneeni kilifa ñëw teewal ko fi ndeketi booba day tàggatoo ak liggéey bi naka noonu itam alxaaji Moustapha Gadiaga wax nañ ko léegi ku toog ci jataay bi sa xel dana dem ci moom waaye Serigne Xaadim Lo ku ci jataay bi sa xel dana dem ci ñoom ak mboolem nag euh, ñiñ ko àndal ñëpp tudd nañ fi léegi sëñ Ibrahima Diop ak ñeneen ak sëñ Mor Awa Diop ak ñëpp waaye ñooñ ñëpp nag yërmande yàlla mu yaatu na lool te lu ne xaj na ci te fii ñu doon jëf itam ku fi jëf ku ne te daan fi jëf-jëf ju mel ni dañ fi daan jëf yaakaar rek la ñu mën a am ci ñoom kon yaakaar jooju nag yàlla na ko suñu borom dëggal te am nañu rafet njort ci ne ku daan liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal suñu borom di ko jaarale ci Serigne Touba ci barabam bu tedd bii. ci weer wu tedd bii fu mu mën a bu la wanee ginnaaw jàppal na mi ngi ci ngërëmul yàlla jàppal na mi ngi ci njëggalu yàlla jàppal ne mi ci xéewali suñu borom te loolu it mooy li am kon nag jër ñu ñi ngi ñi ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom yërëm leen te jéggal leen te xaare leen àjjana teg loxo ci njaboot gi ginnaaw bu loolu jàllee ñu jublu rek ci liggéey bi ci ab tënk euh, tënk bi mu ngi jëm ci leeral li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne moom lañ doon liggéey daaw ni ñu ko baaxoo defee at mu jot euh, muy daaira muxaddamatul xidma doon ko taxawu fii ci jumaa ji ànd ko ak yéen ñii teew ak yeneen bokki taalibe yi nga xam ne itam noo ñoo da ñoo ñoom lañ ko seqal ñoom ñëpp ñu jëf ci moo xam ñu nekk ci biir réew mi moo xam ñu nekk ci bitim réew ñu dundal weer bi nag ci ay jataay waxtaan yu diine ay laaj ak i tontu ay laabiire muy ay conférence ak ay jàngale ak ay fatwa yoo xam ne dem na ci ñaar fukk ak juróom-ñeent bis bu yàlla sàkk ci koor gi diirug li ñu war daaw bokki ñu tànnoon ay bokki jullit yoo xam ne seen xam-xam ak seenu taalibe rafetlu nañu ko ñu jox leen thème yooyu ñoom ñëpp itam defee nañ ko nañ ko séentoo woon ñu mu doon liggéey bu am solo boo xam ne daan nañ ko def bu ñu jullee takkusaan ba doog des tuuti euh, ñu ko doon jàllale itam ci mbooleem tasukaayu xibaar yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu di ko jëlee it ci sit bii nga xam ne moo nekk ci jumaa ji ak bo télévision yi nga xam ne ñoo ko doon jàllale direct loo mel ni Lamp Fall TV. ak yeneen télévision yi nga xam ne ñëw nañ fi ci biir koor gi yëpp doon ko jël si ak rajo yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi euh, lu mu noonoon liggéey bu am solo boobu mu ngi jëm ci liggéey bu xam-xam bi ci topp di waajal ay ndogu yoo xam ne lu toll ci ñeenti junni nit daana ñu fi doge par bis gën jaa néew léeg-léeg sax li ci bari daf ko doon ëpp waaye mu doonoon liggéey boo xam ni tamit suñu borom jàppale nañu ci ba mu sotti coleet te amul benn jafe-jafe ñoo ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Touba mu nangu liggéey bi te defal ñu ci fan wu gudd wu ànd ak wér ak wërsëg wu yokk te àggale seen yéene te defal ñu fi defal ñu ci barkeb waqdi xawaaij allazina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu liggéey bi nag nii lañ ko tërale woon amoon na lu toll ci juróom-ñaari commission yu ko seq am na secrétariat général am na commission organisation am na commission sociale am na commission culturelle am na commission communication am na secrétariat administratif am na commission finance taxawaayu commission yooyu secrétariat général ñoom ñoo daan coordonné mbooleem liggéeyu commission yi ci saytu seen liggéey lu ci jara yokk ñu yokk ko lu ci jari jubbanti ñu jubbanti ko seenub liggéey ñu ngi ko def ci ndigalul président mbooloo mi di jiite mbooloo mi di sëriñ Afia Bousso euh, liggéey coordination boobu sëriñ Abdou Lahad mii moo ko jiite woon ñoom seen budget mi ngi tolloon ci un mi un million trois cent vingt mille cinq cent un million cent vingt mille cinq cent commission bi ci topp mooy commission sociale commission sociale mooy commission bi nga xam ne moo yor lépp lu aju ci dimbalante ak jokkale mbooloo mi ak yeneen mbooloo yi ab liggéeyam ci koor gi lu jiitu koor gi ñoom ñooy dem ci sëriñ bi yeesal ndigal li nga xam ne mooy tax ñu mën a doxal liggéey bi ndax ab taalu bi dafa sa sañut a def lenn te déggu ko ci ndigal rawatina ci barab bii nañ ko baaxoo defee sax ren jii delluwaat nañ fa ci sëriñ bi keroog sax ñoog bàyyi Diop mii yàlla def na ñoo fa daje xam naa nuyu naa ko foofu xëy na xàmmeewuñu waaye fekkante nañ fa ci sëriñ bi bi sëriñ bi di joxe ndigal li waaw euh, liggéeyam ci biir koor gi itam amal na ci ay ndimbal yu am solo yu jëm ci waajumaa ji lu demee ne imaam yi lu deme ne noddukat yi lu demee ne mag ñi nga xam ne dañ fee nekkoon te jeexal fi seeni doole lu demee ne waa daaray kaamil ak yeneen jumaa yi nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi te sëriñ bi dénk ko daairatu muqaddamatul xidma ak yeneen bokki taaliba yoo xam ne itam euh, itte woon nañ dimbal te kàttan maye woon ñu man leen a dimbale loolu amaloon nañu it lu jëm ci am faj moo xam ne dañ ko doon taxawu bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji euh, mu amal lu mu mu toll ci ñetti téeméeri nit lu ëpp ñetti téeméeri nit yoo xam ne consulté nañ leen wutal leen ay ay ay ay fay jëndal leen seen i ordonnance taxawu leen daal ba lañ ca war a lépp ñu def ko moom budget tolloon na ci huit millions cent soixante dix huit mille am na commission culturel moom mooy commission bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu xam-xam ak tàggat ci biir daayira bi moom it moo yor waxtaan diini yi ñu doon amal ci koor gi ab liggéeyam ci koor gi nii la tëddee ci biir koor gi amal na ci ñaar fukki jataayu waxtaan ak juróom-ñeent moo am ci ñeent yoo xam ne ay fatawa ay laaj ak tontu am ci ci yoo xam ne day aju ci mbirum diine ak mbirum taalu ak lu aju ci ak taalube tontu nañu ci itam lu mat ñetti téeméeri laaj ak juróom benn ak juróom ak fukk ak ñaar ci ay waxtaan ak fukk ak ñett ci ay bind yoo xam ne yu aju ci diine la yu ñu war a xam ñu jàngalewaat ko fi ba mu leer nañ waxtaan yi ni muy tëgg tëgg ko at mu jot noonu lay doon dafa am ay bunt ci xam-xam yoo xam ne dañ ko war a jàngale moom it dañuy indi bunt bi lépp leeral ko ba leeralin woo xam ne ku ci bëgg a jariñu mën na cee jariñu lu muy bunt yoo xam ne lu demee ne azaka wala lu mel ne koor wala lu mel ne jaay ak jënd wala lu xeet wala miraas wala xeet yu mel noonu lu ci nekk day am ci biir waxtaan yi ak jagle goo xam ne at mu jot dañ ciy jagle nangam ab lim boo xam ne day am ci biir waxtaan yooyu am ci it yoo xam ne ay thèmes lay doon yoo xam ne day yitteel jamono mu ñu yoo xam ne tolloon nañ moom itam ci fukk ak euh, euh, fukk ak benn ak fukk ak ñeent yoo xam ne ay bind la yu ñu doon jàngale defar nañu itam këyit yi xam ne waxtu dog yi defaroon nañ ci lu toll ci juróomi junniy këyit séddale ko ñoom seen budget mi ngi tolloon ci un million trois cent cinquante huit mille francs am na commission communication moom moo lépp lu jëm ci wàllu yëgle ak jokkoo ci biir daayira bi mooy saytu tamit euh, site internet bi nga xam ne mu ngi ci biir jumaa ji di ab télévision boo xam ne àdduna bépp dañ koy mën a seetaan ab liggéeyam ci koor gi nii la tëdde woon mbooleem waxtaan yi ak liggéey yi doon am ci biir koor gi ak ñi fi doon indi ay ndimbal jëm ci biir liggéey bi yëpp def nañ couverture bi ci gën jaa rafeti anam wan ko wane ko ci àdduna si ba ñëpp gis ko mbooleem rajo yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi itam doon nañ leen jox son yi waxtaan yi ngir ñu di ko jàllale ak télévision yu bari yoo xam ne ñëw nañ fi ci biir koor gi ñoom it ñu jox leen image jox leen itam euh, euh, son yi euh, télévision yi nga xam ne itam dañ doon soxlaa jàllale mbir mi en direct wala site yi nga xam ne dañ ko doon soxlaa jàllale en direct it ñu di leen jox lien bi ñu di ko mën a jàllale en direct ci na mu gën a yombee gën naa rafete ñoom seen budget mi ngi tolloon ci un million deux cent dix-sept mille huit cent francs am na secrétariat administratif mooy kuréel bi yor lépp lu aju ci mbind ak saytu mboolem luy kayit ci dayre bi euh, membre buy bindu wala ku fi indi dara wala ñi nga xam ne dañuy liggéey te soxla ay jumtukaay yu ñu liggéey ci wàllu kayit moo xam muy ay formulaire moo xam muy ay reçu factir moo xam leneen lu mu mën a doon loo xam ne ci kayit lay aju rek ñoom ñoo koy euh, taxawee commission boobu commission boobu euh, mboolem ku fi indi addiyee ci biir koor gi bindal nañ la leetaru tontu ba noppi itam euh, lépp lu ñu war a defaral commission yi ngir ñu mën cee liggéey defar nañ leen ko seen budget mu ngi tolloon ci deux cent vingt et un mille six cent commission organisation mooy commission bi nga xam ne euh, mooy saytu woon nag liggéey bi moom bi jëm ci wàllu ndogo yi ak organiser jataay yi nga xam ne fa la ñuy defee waxtaan yi ak toppatoo nit ñi ci ndogo yi ak lépp lu ci ajo seen liggéey mi ngi daan tàmbali juróom benn waxtu ci suba six heures du matin bu ñu sëlmalee fajar rek daan jeex onze heures ci guddi diirub weeru koor gi yépp moom membre yi mu doon liggéeyloo itam toll nañ ci juróomi téeméer ak fanweer ak ñett ak juróom juróomi téeméer ak fanweer ak juróom ci ay góor ak yi jigéen niñ koy faral la leerale day am mbooloo moo xam ne dañuy xëy si suba teel ñoom ñooy raxas bagages yi jumtukaay yi ngeen gis ci seen kanam ay téeméer yu limu la wala boog ay junni diggante ay junni la yu bari sax diggante kopp ay palaat ay pañe mburu ay yeneen yi ak ak jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo lu mel ne yi ñuy def yi ñuy tàngale kafe yi yi ñuy seggee bisaab yi yi ñuy defaree jus yëpp ñoom ñooy xëy si raxas ko ba mu set wecc loolu mbooloom jigéen la mu baree baree baree bari naka noonu am na ñoo xam ne ñooy xëy si waajal yi ñuy def yi ñuy waajal yu demee ni tàngal yi café yi yu demee ne segg bisaab yi yu demee ne defar jinjeer yi yu demee ne defar yooyu nga xam ne dañ ko war a defar yëpp moom it mbooloo mu takku ñoo ciy nekk yandu ci daal yi ba ngoon jot am na itam mbooloo moo xam ne ñooy ñëw taxaw organiser jataayu waxtaan yi ba du déborder du am surxu surxu kenn ku nekk toog fa mu war a toog am ñoo xam ne ñooy ña nga ca yokk yow ñoom ñoo koy lal lal tapis lal napp yi teg bagage yi ñii di dagg mburu mi ñii di defar ba bu ñuy waxtu wax nit ñi ñëw danañ fekk lépp tege am ñeneen ñoo xam ne ñi amul fu ñu toog ci biir te nekk fii ci biti ñoom ñooy yor seenu saytu kenn ku nekk fa nga nekk ñu fekk la fa lañ la war a jox ñu jox la ko am ñoo xam ne nag bu ñooñu ñëpp noppee ba ba ba nit ñi dellu ñoom ñooy lalli lalli bagage yi teggi waat yëpp yóbbu ko ba fu mu war a nekk fañ ko war a raxase ñu teg ko fa ndànk fexe ba dara bañ cee yàqu wala li yàqu bañ a bari am ñoo xam ne ñooy fañ doon fañ ko doon defee ñoom ñooy koy raxasaat ba mu set wecc ci guddi gi ñu door a dellu loolu xam ngeen ni mbooloo mu bari ñoo koy taxawee te liggéey bu yaatu la loolu lépp nag commission organisation ñoo ko jiite bi boobu moom budget mi tolloon na ci vingt deux millions trois cent douze mille francs ci li nga xam ne xaalis la bu ñu décaissé euh, bokkul ak liñ jëfandikoo ci wàllu matériel yi nga xam ne dañ ko fee doon andi. mooy euh, am na commission bi bu tudd bu tudd commission finance te mooy bi ci mujj moom mooy commission bi nga xam ne li fiy ñëw li ñuy dajale nii ci xaalis ci seen loxo lañ koy teg luñ ci soxla buñ bindee bon andi ñu ta ñu saytu bi parce que xam ne lu jaadu la ñu validé ko jox leen ko ñoom ñoo koy financé ñoom amuñu budget ci loolu nag loolu mooy ngi liggéey bi tënk te euh, tegaloo daaw nag niñ ko xamee bari na lool ñoo xam ne indi nañ fi ay euh, barkeelu yu jëm ci liggéey bi ka ca jiitu mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér nii mu ko defee ren tey jii mi nga xam ne tey tey tàggoon nañ ko ngir liggéey bi ñu xam ne tey lañ fi war a daje tey bi ñu daataa daje barkeeloom moo fi jiitu mi ngi nii mayor di un million ak fanweeri saako yu suukar ak fukki keesi yi tàndarma noonu la ko defee woon daaw kon moom moo jiitu waaye ànd koog nag mbooloo mu bari ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci biir tim réew mën nañ cee ràññee euh, fondation Muxaddamatul Xidma bi nekk Amérique mën nañ cee ràññee fédération Espagne ak réew yu bari yoo xam ne daal. ak euh, yoo yeneen réew yu bàyyi ko fii ci Afrique Mali Côte d'Ivoire Ghana Cameroun Gabon ak yeneen réew yu takkoo takku euh, jataay bi xëy na moo doon mayee ñu mën koo lim lépp waaye ñu bari lañ loolu buñ ko xoolee ñi nga xam ne ñoo ci barkeelu daaw ci wàllu xaalis lépp toll na ci euh, toll na li fi ñëw ci wàllu xaalis lépp Euh, toll na ci 47 millions 661 mille cinq francs loolu itam ñi ko fi indi ci diggante ay nit ay daayira ak ay yu jóge bitim réew seenub lim toll na ci cent vingt 428 personnes yoo xam ne dafa dafa ko ci ay nit lenn li nekk ay daayira lenn li nekk ay mbootaayu daayira gu nekk bitim réew ak nangam daal waaye lim bi lim bi nga xam ne ñoo ko fi indi daal toll nañ ci quatre cent vingt huit naka noonu xaalis boobu itam ni mu dikke woon nii la tëdde bokk yi nga xam ne ñoo doon jaar ci alaaji Moussa mbay indi nañ fi lu toll ci seize million cinq cent quatre-vingt-treize mille Serigne Bara Diop ñi doon jaar ci moom andi nañ fi deux millions quatre-vingt-quatorze mille soo ko boolee mu nekk dix-huit millions six cent mille francs bu dee li jóge ci daayira bi ñi nekk bitim réew te jaare ci Serigne Assane Diop lëkkale réew ju fasanti ko toll na ci huit millions six cent vingt-huit mille deux cent vingt-cinq francs fondation Muqaddamatul Xidma Amérique la ca bàyyi koo woon toll na ci million 4 millions 505 mille francs soo boolee loolu day nekk 13 millions 133 mille deux cent cinq moo bàyyi koo bitim réew dugg si ci daayira bi ni ma ko waxee léegi mu bàyyi ko nag ci ay réew yu bari euh, li nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi tey ay membre yi muqaddamatul xidma wala ay kilifa yoo xam ne dañ cee barkeelu te jaarale ko ci daayira bi directement nga xam ne jaarewul ci buntu ñaar ñaari bunt yooyu ma wax ñaar ñi nga xam ne ñoo yore woon wàllu saytu xaalis bi di sëriñ Abdou Lahad bu Sanafiya quinze million six cent dix neuf mille six cent quatre vingt moo jaaree ci loxoom li jaaree ci Cheikh Abdou Bousso nekk deux cent vingt deux mille francs soo ko boolee muy quinze million huit cent quarante et un mille six cent quatre vingt su ko defee li jaare ci bu nga xoolee li nga xam ne dafa ñëw directement ci daayira bi euh, ci membre yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew ak ñi nga xam ne dañu fay joxe seeni barkeelu toll na ci vingt huit millions neuf cent soixante mille neuf cent cinq francs li nga xam ne dafa jaare ci euh, Serigne musaa mbay ñoom ak ñi mu ko àndaloon Serigne Bara Diop ñoom toll nañ ci dix huit million six cent quatre vingt sept mille soo ko boolee mu nekk. million 47 millions 661 mille 905 francs loolu mooy li nga xam ne moo fi ñëw ci xaalis daaw moo amit ñeneen ñoo xam ne dañ doon joxe ay bagages yi itam niñ ko waxee Sëriñ Muntaxa moo ci woon ci fanweeri saako yu suukar ak fukki keesi tàndarma noonu la ñeneen toppee ci moom ñu bari ñoo xam ne toll na ci euh, ñeen fukki ja euh, barab ñeent fukki barab yoo xam ne ak juróom-ñaar yoo xam ne ay matériel bàyyikoo na fi lii suukar la lii tàndarma la lii café la lii ndox la lii yeneen bagage la yuñ mën a jëfandikoo ci koor gi biñ ko estimé ginnaaw dañuy jënd lenn lu nekk xam nañ la muy jar ñu lu fi ñëw dañ koy màndaxe ci xaalis biñ nattee loolu fi ñëw lépp ci bagage toll na ci douze million cent trente sept mille huit cent trente cinq ñi ko fi indi toll ci 47 barab yu mu jóge naka noonu am na ñoo xam ne dañ fay joxe addiye mburu ñoo xam ne dañ fi doon joxe addiye mburu ñoom mu doon ñu bari ñoo xam ne seen lim ñoom itam toll na ci 33 personnes indi nañ bokk na ca ña ca gën a ràññiku daayira miftaaxul xuyuur bi nga xam ne moo lëkkale boulangerie yi te seeni jëwriñ teew nii ci jataay bi ñoom indi nañ fi ñoom dong lu toll ci quatorze mille six cent soixante sept ci ay bageti mburu quatorze mille six cent soixante sept loolu lim bu am solo la waaye ñi nga xam ne ñoo fi doon indi mburu ñëpp bu ñu boolee li ñu fi andi toll na ci de euh, vingt cinq mille cent trente et vingt cinq mille cent trente et ñaar fukki junni ak juróom ak téeméer ak fanweer ak benn ci ay miisi mburu euh, li ñu fi joxe kon ci mburu toll na ci euh, ña wint cinq mille cent trente un li ñu jënd toll na ci vingt et un mille cent soo boolee kon lépp day nekk quarante six mille deux cent trente un ci ay mburu quarante six mille deux cent trente et un maanaam ñeent fukki junni ak juróom-benn ak ñaar téeméer ak fanweer ak benn ab limam ci xaalis toll ci million 6 millions 241 mille 185 francs am na ñoo xam ne it dañ doon waajal ay xéewal di ko fi indi ñooñu seenu nga xam ne ñii dañuy indi tàngal kafe indi baa ñu togg aw ñam indi baa ñu togg laax indi baa ñu defar beñe indi ak lu mu mën a doon rek ci loo xam ne dañ koy jëfandikoo ñi ko fi indi seenub lim toll na ci ñi ko fi daan indi seenub lim toll na ci ñaari fukki nit ak ñeent euh, yi nga xam ne moom la ñu dépassé ci koor gi waxoon naa léegi commission yi nga xam ne ñoo ko seq commission bu nekk tuddoon naa ñaata la dépensé ci biir koor gi euh, kon damay ñëw rek ci tënku lim yi nga xam ne moom lañ fi jëfandikoo lépp dañuy wax ne kon li fi ñëw ci xaalis toll na ci quarante sept millions six cent soixante et un mille neuf cent cinq francs li fi ñëw ci bagage toll na ci douze million cent trente sept mille huit cent trente cinq li ñu financé ci xaalis ak bagage li ñu financé ci xaalis toll na ci million 34 millions 607 mille 900 francs li ñu financé ci bagage toll na ci 12 millions 137 mille 835 kon li fi ñëw lépp ak li ñu ci dépensé lépp li fi ñëw lépp toll na ci 59 millions 799 mille 740 59 million sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante mooy boo boolee xaalis bi ak bagages yi noonu lay toll li ñu dépensé lépp muy ci xaalis ak bagage boo ko xoolee day nekk quarante-six millions sept cent quarante-cinq mille sept cent trente-cinq quarante-six millions sept cent mille sept cent trente-cinq bu ko defee su loolu génnee ci li fi ñëw ci xaalis lépp ak bagage day des treize million cinquante quatre mille cinq francs kon bi ñuy wari loolu desoon na fi ci xaalis daayira bi nag ni ngeen ko xamee màggalu Tuubaa dafa bokk ci ay yëngoom euh, diir bu yàgg boo xam ni moom it day liggéeyloo waat mbooloo mu toll ni mi mu liggéeyloo ci koor gi wala mu ëpp ko te dañ fi yàgg itam nga xam ne seenu lépp moo koy yor te ñi ëpp ci ñi nga xam ne dañuy participer ci weeru koor gi la ñuy participer moo tax bu desee dañ koy denc boleke ko ba mag bañ ko ba feeg màggal jotut duñ ko laalaat dañuy soox di dox ba àgg ci màggal la fa desoon ñu jël ca mo lu ñu am ci màggal gi jël ca loola mottale ko ren liñ ci mottalee ci màggal gi ak ci gàmm gi ak yeneen liggéey yoo xam ne dafay teewoon nii la demee mottali nga xam ne moo mottali dépense yi gàmmu màggal gi ak gàmmu gi euh, huit millions six cent vingt-huit mille quatre cent quarante ak neuf cent trente mille ci gàmmu gi un million neuf cent trente mille dafa am un million boo xam ne dafa dugg ci biir dépense yi màggal gi waaye ci gàmmu gi la bokk am na loo xam ne ay dépendance la woon ci groupe bi groupe jumaa ji ak ay gasoil yu ñu ci doon jënd ak oto bi nga xam ne ñooy mooy yóbbu waa Daaray Kamil ak yu ni demee loolu itam moom itam nekk na ci un million deux cent soixante quinze mille amoon na moteur oto bi bii nekk ci morgo bi ak ay defaraat yu aju ci euh, entretien morgue bi ak Euh, yeneen yu ni demee yoo xam ne ay déficit la woon ci ñu ñu waroon a fay te mu amoon ay manquement ñooñu itam génne woon nañ ci lu toll ci un million yoo xam ne ca loolu la jëm bu ñu xoolee diggante daaw ak ren daal li nga xam ne moo génn ci compte boobee toll na ci douze millions deux cent déedéet toll na ci onze millions huit cent trente trois mille euh, quatre cent quarante bu génnee ci treize millions. zéro cinquante mille zéro cinquante quatre mille day des douze un million deux cent vingt mille cinq cent soixante cinq lii mooy rapport bi nga xam ne moo tënk euh, liggéeyu kooru daaw ga ak diggante daaw ak ren ci lu aju ci compte bii nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ci liggéey bi nga xam ne moo jëm ci jumaa ji te ñu seq ko ak yéen ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waa groupe bi itam lii ñu ci def ay mottali la ndax am na ci yoo xam ne sëriñ bi ci boppam ndax moom ay pièces am dafa seer néew na lu muy paan ab pièce te matul 2 million wala mu ëpp ko waaye li ci bari sëriñ bi mooy jënd pièce bi mënoo dem ci rek ci sëriñ bi mu jënd pièce nga ñëw ñu monte pièce bi ne la gasoil manqué na ngay delluwaat ci sëriñ bi di ko laaj gasoil mënoo itam léegi woo waa ji mu ñëw wekki pièce bi war koo jëndi diggante bi muy ñëwee ak bi muy demee faaw nga jox ko ay frais déplacement yi muy ñëwee ak ya muy delloo ak yeneen yu ni demee yu bari yooyu mooy lii nga xam ne mooy jëm ci groupe bi léeg mu ñëw lañ ko jox yem ci pièce bi faaw nga wutal ko loo ci loxoom yooyu mooy yi nga xam ne moo jëm ci groupe bi waaye lépp nag mu ngi fi lu ci luñ ci soxlaa leeral itam mën naa leer nañ incha allahu taala ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jékk lu ci tënk bi ni mu ni mu tënkoo xëy na jataay bi moo laajul yenn détails yu gudd yi ndax détail bi yàgg na te bañ fee guddeel kilifa yi ñu war jël kàddu moo tax ñu tënk ko noonu ci ni mu gën a gàtte wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gis ngeen rapport bi yi nga xam ne mooy tënk liggéeyub daaw bi ni mu ko leerale tàmbalee ko ci commission yi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi ba ci mbooleem loo xam ne jëfandikoo nañ ko ci consommation waaye itam képp koo xam ne indi nga fi sa addiya moo xam xaalis la moo xam bagage la moo xam lu mu mën a doon turam mi ngi ci biir rapport bi ak lam ca joxe ab ak kam ko joxoon ba mu agsi loola lépp tënk nañ ko ci biir rapport bi waaye yemuñ ci loolu bis bu ko indee danañu bind benn lettre boo xamante ni mooy accusé de réception bi wane ne diw indi na fi nangam jaar la ko ci loxo yi diw mu agsi loola tënk nañ ko lii di xaalis lenn li di ay bagage moo xam suukar la wala tàndarma wala lu ñu demee loolu lépp mu ngi ci biir rapport bi ni ko sëñ Abdou Lahad tënke mu xayma xaalis bi xayma itam bagage yi nga xamante ni moom lañu fi indi te war koo jëfandikoo mboolem commission yi fi nekk doon ci liggéey tam ku ci nekk budget ba mu amoon yaakaar naa leeral na ko ba mu leer ni ma ko waxee ci njëlbeen gi rek xëy na ab rapport dana yaatu yaatu goo xam ne waxtu wi du maye ñu yi lépp waaye képp koo xam ne bëgg nga ci ay leeral yu gën a leer rek boo dellu see ci ñi nga xamante ni ñoo doon coordonné liggéey bi bu dee ci wàllu opérateurs yi sëñ alaaji Moussa mi ngi fi ak alaaji Baara ñoom ñi ngi ak rapport yi loo ci bëgg a leerlu rek dañ la ko leeral incha allahu taala comme ni ñu ko baaxoo defee nag saa yu ñu masaan jàng rapport bi ba noppi daañu jël kaddu kaddu yi nag jébbal ko ci ñi fi teew ngir ñu joxe ci seeni xalaat waaye itam joxe itam seeni euh, soññee ci liggéey bi kiñ ci njëkk jox mooy alxaaji Mouhamadou Diop muy Baye Diop moom lañuy ñuy njëkk a jox kàddu gi buñ ca jógee doog a ñëw ci euh, alaaji Kàbb Fall da ngay wëlbati caméra di la sant di la ñaanal yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay noo ngi ànd itam di ñaanal sunu waay dawlu yi nga xam ni ñoo ñoom ñoo ko daan bokk démb ak bëkk démb kenn mënu leen ci won te yàlla sunu borom ba yóbbu leen ndax loolu moo ko neex yal na leen yàlla yërëm yal na leen yàlla xare àjjana daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke borom Touba maam borom Touba barke sëñ gaawaan kon kàddu yi li ma ci dolli mooy Euh, lii day wax dëgg yàlla mbir la moo xam ne mii néewaana lu ko gën a fe lu ko lu ko gën a baax ci wàllu jaamu yàlla ndax boroom xam-xam yi dañu wax ni reggal ab jullit reggal ab jullit bu xiif wala nàndal ab jullit bu mar euh, jaamu yàlla gu ko féete kow amul bariwul astaghfirullah euh, beneen bi ci topp mooy dañu wax ni sëñ Tuubaa moo daan wax naan jaamu yàlla yi joxew ñam moo ma ci gënal waaw loolu dégg naa ko ñu wax ko kon wax dëgg yàlla lii moom xawma ma ku ko xalaat xawma ku ko sos waaye euh, kenn xalaatul ci dëkk bi lu ko gën kenn xalaatul ci dëkk bi lu ko ëpp kon nun ñëpp yal na yàlla ak sëñ Touba dolli noo dimbali yal na yàlla lépp lu ci waaye def ren yal nay asakay la nga am bu déwénee leneen li ma ciy dolli nag man maa ko ci dolli sama bopp mooy sunu mbirum daara ji maa ngi fàttali sama bopp di fàttali ñépp eh, kenn ku ne daal bul ni defar naa fukk bul ni defar naa juróom nanga mel ni dafa dara ndax liggéey bi kat yal na yàlla doole suturaal yal na yàlla doole dimbali waaye liggéey bi du liggéey bu ndaw te xaalis bi bari na kon nag bu kenn defar naa fukk bu kenn defar naa juróom damay teye sama loxo bu ñu ko defee rek àdduna tukki kon nag maa ngi leen di euh, sant di leen gërëm di leen ballu ak di kàdduy soññee di kàdduy fàttali jërëjëf yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi di rafetlu bu baax a baax yi nag pasteefuk ak liggéeyub kuréel gi ñuy wax ACIS te alaaji fàllu ma jiite ko ñoom itam daaw am nañ taxawaay bu fés boo xamante ni def nañ ko ñëw nañ fekk seeni mag seeni baay ñu nekk ci liggéey bu am solo ñu gis am solo gi tax ñoom itam ñu bëgg a jël relève bi loolu itam lu am solo loo xam ne mën nañ ne dana am yaakaar ci kanam ci ne liggéey bii du taxaw te liggéey bi Serigne Touba noonu la demee kon ñoom itam yàlla na leen yàlla kàttanal taxaw leen bu baax a baax ci barkeb Cheikhul Khadim kon ñu jox kàddu gi alxaaji Kabbu Fall nga xam ne mun nañ wax ne membre fondateur la ci liggéey bii moom itam mu yëkkati kàddu yi soññee asalaamualeykum euh, yéen mbokk yi ñu ngi leen nuyu leen sant di leen gërëm te di xam ni lii de euh, di xam ni lii dafa mel ni sunu liggéey bii kéemaane sëñ Tuubaa feeñ na ci ndax yaakaar naa ni ba ñuy jëkk daje fii ci jamono sëñ Saliou daje bu njëkk ba million million bu mat tëwoon nañu ñu naa dañ koy def par ajjuma ak dañ koy def par lii ak laa ba sama indi ko fii kon ku ne xam na ni dafa mel ni kiñ koy defal nangu na ko ndax li tax mu nangu ko mooy ki nga xam ni moo fi nekkal Serigne Touba buñ ko buñ ko ko waxee mooy jëkk yëkkati alalam def ci yàlla na fi yàgg te kon nag lii loolu ab soññe la wane wane na kéemaani Serigne Touba ndax loo xam ne def def defe naa ñu ni matul woon un million au départ boobaak léegi muy dox di dox di dox ba suñ joon yàlla te ñu naan cinquante neuf millions ah kon li ci kanam nañ gën a góorgóorlu ba sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw moom daal ko rek te góoru loolu daal mooy liggéey bi yéen nag yéen Moukhaddamatoul ma nag ku dégg ni ngeen doxale daanaka yëf yi yéen a ndax suñ ko fi indi woon te amul ñu ko taxawat du mujj fenn ndax ñun man xam naa ci dara suñu côté bee njàkk su tuute fa nekk te daanaka organiser ko rek kenn mënu ko ba ren jii damaa fas yéene ak daaw yëpp seet neneen nu ma ko def def ko ceeb mbaa leneen joxe ko rek noppalu ndax moom kon defe naa lii nun xam na ni li ngeen di li ngeen daj am na lu ñu ci xam kon nag mu ngi leen sant gërëm wasalaam. waa kay jërëjëf Fall ni ma ko waxoon ci njëlbeen gi moom lu mu ci wax rek am na ci xam-xam bu leer ndax njëlbeen ga ba léegi ñoo moom ñoo ko ànd dara ump ko ci kon yow itam na yàlla yàggal taxawaay bi euh, ni mu ci nekkee itam ni la ci ak njabootam nekke loolu itam ñu ngi koy seedeel ñëpp kon ñu jox kàddu gi alxaaji Baara Diop moom itam di jëwriñ ci liggéey bi di borom ñu baree bare di jaar ci loxoom yamatul sax ci biir réew mi waaye ba bitim réew ñépp ci loxoom lañuy jaar moom itam ñu ngi rafet lu taxawaayam bu baax a baax a baax ñu ngi rafetlu bu baax teewaayu euh, waa Miftaahul Xuyuur ci njiitul Sëriñ am Lo ñoom itam seen taxawaay rafet na ndax yaakaar naa Sëriñ Abdou Lahad tudd na bilan wu mburu mi ak participation bi ñu ciy def waaye loolu lépp am na solo waaye li ci gën a ama soloti mooy positif bi ñu ci def waxoon naa fii daaw na da leen a jaraloon ñu wut ab oto boo xam ne spécial jënd ko ngir liggéey bi rek ngir bañ mu tardé moo tax balaa takkusaan a jot mbooleem pour yi nekk ci dëkk bi yëpp danañ dajale mburu ma mburu mi fi kii indi ko nga xam ne benn du ci tardé kon ñoom itam ñi ngi rafetlu bu baax seen taxawaay di ko seereel mbooloo mi yëpp waaye seere gi am solo rek mooy Serigne Touba gis na ko te yàlla na ko nangu loolu rek moo am solo kon sëñ bi asubillahi min asheytaani rajim law la wala xawta illa bil azim allahuma salli ala sayidina muhammadin wasalim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi sant sa Boroom tabaraka wa taala di julli ci sangu-sang yi sayduna muhammad rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal suñu wasila sëñ Muntaxa sa Boroom may ko fan gudd lool te ànd ak wér ba naal yi mu naal yëpp mu yeggale na ko bëggee barakat rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam samboroom mën na ko sañ na ko te am nañ yaakaar ni dina ko ci jàppale ñi ngi sant mboolem jullit yi nekk fii tey daje fii ñëw teew ndax woote ñu wuyu la dafa xaw a jafe ci jamono bi ñu nekk ndax xat-xat yi ñu nekk kon boo wootee am korom bu toll nii te pasteefu sant war nañu sant war nañu bala may gën a sori ci waxtaan wi nag bilan financier bi ngeen doon présenté léegi da ngeen a baax rek da ngeen baax te takku te dëggu rekk waaye leer na ni waa ñoo ngi toll woon ci bilan financier bi ngeen ñu présenté fii loolu moom kenn amu ci dut kenn amu ci looy nattable ndax loo xam ne lii sëñ Saalihu Mbàkke moo ko sosoon muy dox di yëg si ba fii xam nga ni loolu teg nañ ko ci loxo yu wóor ndax ñooñu ku ñu seet ak sëñ Muntaxa ku ñu seet ba doy looloo ba jël liggéey bu toll ni jublu ci jumaa ñu teg ko ci say loxo da ngeen a yor seenu baax ñu toog fu ngeen di nu présenter bilan financier rek waaye ñun soxlawuñ ko waaw soxlawuñ ko mat lépp mat na. koo xam ni kii boo la sa kër sax boo ko sañee ne jaay indi ko ci def ki li ñu la jox doo ko dugal fu dul ci yoonu Serigne Touba wi kon sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla na ngeen ko yàgg taxawu yàlla na ngeen ko gën a man ba seen i sët ak sët di leen remplacer ci liggéey bii ndax am na solo lool kon sant nañ leen gërëm nañ leen. jaarale ko ci seen njiit yàlla na ngeen ko yàgg def te yàlla na barkeel beneen bi ñu ngi jublu ci sama mbokk yi boulanger yi nañu gën a góorgóorlu ci liggéey bi ndax kenn ku nekk da nga ko ci sa gentum maam ñëw dikk Tuubaa gi samp fi di jaayanteeg sëriñ bi ak di fi yëngutu loo looy joxe àddiya ak lu yóbbu sa njaboot kon bu sëriñ bi soxlaa danoo war a wàcc lu ñu doon def ak lu ñuy def def ci ba def ci lu ñu mënul loolu moo war nan ko def ah ci turu commerçant yi nga xam ne ñoo nekk euh, fii ci dëkk bee itam te sëñ Moustapha euh, Mbaye sëñ musaa mbay jiite leen ñoom itam maa ngi leen di boole ci ngërëm li maa ngi leen di boole ci sant gi ndax kenn mënu leen ci liggéey bi jàmbaar ngeen ndax damay gis fii li ngeen fii indi ak ni ngeen fii teewe ak ni ngeen fi taxawee yàlla na ngeen ko yàgg a man loolu natt boobu daleen ci seen kaw te sëñ bi jël alalam def ci ñeneen jël def ci la yàlla bu leen dalaat yàlla bu leen loolu dalaat yàlla na seen liggéey barkeel jàmbaar ngeen ah ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te leen wax ne sëriñ bi moom ni ko ñëpp di waxee liggéeyal ko bërigo bu nekk ci mbartal la boo ca tegee sa loxo dana dem boo ko ci tegul dana dem waa te naan dinaa def ak dinaa def nii ba ñu raw la gàcce la waa amuñu lu dul sëñ bi amuñu lu dul jumaa ji amuñu lu dul dëkk bi kenn ku nekk war naa jël loxoom di ko ci dugal ndax ñam yi ñu fi lim ak teraanga yi ñu wax ne dañ ko fi indi lépp man na ma waat ni am na ñooñ bu weer wi teroo ba weer wi bu muy dee seen ndogu ak lañu yóbbu seen kër fii lañ koy jële ci jumaa ji di ko fa yóbbu kon loolu jar naa liggéey ba dee ngeen baal ñu àq asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Aliou ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkatee tinko ko yàlla na nga ko fi yàgg yëkkati ci barkeb Cheikhul Khadim jërëjëf Guèye sant nañ bu baax a baax a baax kon ñu jàll ci rek sëriñ am di Lo kon mën naa jege si sëñ Amdi waaw Euh, sëñ am ah <laughs> waaw kon Baye Ali yóbbaale na leen waa kay jërëjëf kon sëriñ Fallou Xuma Alaaji Fallou Xuma euh, mi nga xam ne moo jiitee mbootaay googu ñuy wax assise te ma doon wax seen pësteef sànq ci taxawaay bu ñu am daaw euh, ndege ni si daaw yëkkati woon na fi kàddu ñu jëloon engagement ne incha allah lii dañ ko fas yéene ànd ak seen. mag ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ci liggéey bi waaye noonu ñu ko waxee woon itam lañ ko defee takk gu am solo lañu def yamul ci ñi dë nekk ci biir dëkk bi rek waaye fii ba Ndakaaru ak mbooleem région yi ndax xam nañ ne association commercant et industrie du Sénégal région yi Sénégal yi yëpp la ëmb moo tax it dañ koo yaataloon ba mbooleem goxi Sénégal yi ñu ci doon jàpp ñoom itam ñi ngi rafetlu seen pësteef bu baax a baax kon Alaaji Fàllu bismillah auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim laa hawla wala quwwata illaa billaahi aliyil asiim ñoo ngi nuyu sëriñ Afia Bousso mi mi nga xamante ni mooy njiitul daayira Muxaddamatul Xidma ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo topp ci ginnaawam di ko jàppale ci liggéey bi sëriñ Abdoulaye sëriñ Maxtaar wax di yàlla di leen jaajëfal baax ci liggéey bi nga xamante ni képp koo xam ni ci dëkk bi nga nekk rek war na la kon yéen bu ngeen nekkee di ko taxaw ñu ngeen noppal ñu ci wax dëgg yàlla cant gërëm war naa jóge ci ñun jëm si ci yéen di sant bu baax sëriñ Mamadou Diop mi nga xamante ni mooy sunu bàyyi di sunu kilifa di sunu njiit ci lépp kon bu teewee turu commerçant yëpp mën nañoo jël am nuyoo teg ko ci euh, loxoom mu jàllale ko ñëpp jàllale ko ci sëriñ Moussa ak sëriñ Kabou ak sëriñ Baara mboolem ñi fi nekk ñëpp rek ndax mën naa ne ñi fi nekk ñëpp dañuy yëngatu ci jaay ak jënd kon ñoom sunuy mag lan di sunuy bàyyi bu ñu waxee rek mën nañoo yóbbaale mbooleem koy jaay ak jënd ci dëkk bi xañ na dañoo baax rek di séparé waaye ñun jaaykat bu mag ak jaaykat bu ndaw amut kenn ku ci teew rek mën naa yóbbaale ñëpp kon ñoo ngi jaajëfal baax Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu rëy bi nga xam ne ñoo ngi koy liggéeyal Serigne Touba te ñu ànd kook ñoom yàlla def man man nekk koo xamante ne xañ na membre laaj boo xam ne ba may jàng alxuraan laaj nekkoon ba tey yàlla dogal man ñëw ci marché bi bañ di ma tudd di tudd ay commerçant kon loolu sant yàlla la ñaan suñu borom subhanahu wa taala ba doole ñu dimbali te dara bañ a génn sëriñ bi ñu xeetal ñu ci liggéeyal sëriñ bi rek kon bu ko defee ñun ñoo ngi woo suñu mbokk commerçant yi nga xamante ni dañuy yëngatu ci dëkk bi dara taxut lu liggéeyal sëriñ bi ak luñ jaamoo yàlla rek tax lii di liggéey boo xam te ni bu yaatu la boo xam te ni dañ ci liggéeyal yàlla te dara gën a koo feete kaw te it xam nañ ni naka jekk daanañ liggéeyal yàlla waaye nag lii day liggéey boo xam te ni ku ci def euh, ñu dencal la ko foo xam ne du yàqu mukk kon nag képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te yëngatu ci jënd ak jaay ñoo ngi lay woo soo ko yëgoon nit nga daa nga ci def nga gën cee góorgóorlu gën cee dugal sa loxo fekkee daawoo ci def it nga xam ni kat bërëb la bërëb la boo xam te ni bu ñuy sàkkoo yiw la woo xam te ni loo ko def doo ko ñàkk da dañ la koy dencal ba kon képp koo xam ne yaa ngi jaay ko jënd moo xam Touba nga dëkk wala nga yaakaar Touba te nekk ci bitim réew it ñoo ngi la ci woo nga dugal ci sa loxo ndax loo xamante ni ñun ñëpp la waroon bu amee ñu koy taxaw di ko selal jàpp naa ne ndimbal lay doon ci ñun kon nag ñoo ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di am rafet lu baax a baax ndax it jotaay bi rafet na ndax ñi fi teew ñëpp walante ak bëgg lu baax ak yaakaar sëriñ bi rek moo leen fi te lépp lu ñuy wooteel sëriñ bi yaakaar naa dara gënu ci dara gënu ci kaw jumaam ji nga xamante ni moom la nekk di fi dund kon nag yaakaar naa liggéey bu gën a rëy la kon lépp lu waay jàpp daal na ko bàyyi te xam ne liggéey Serigne Touba la boo xam ne dara ëpp ko doole ni ko Baye Diop waxee rek soññe na ci ci liggéey bi léegi da daanaka mën naa yóbbaale ñëpp kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di soññ ñëpp daal ñu def ci seen loxo ba sëriñ bi am li mu bëgg ndax bu sëriñ bi amee li mu bëgg ñu am ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ok jërëjëf sëñ Fallou ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax Euh, kon ñu jàll ci El Hadj Moussa wala Serigne Baara kàddu yu mujj yi bala ñoo taxawal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare bu baax a ah, daanaka de li ma war na wax lépp li ci ëpp sax wax nañ ko ah ma sama kàddu ma jëmale ko ci di soññee suñ mbokki commercant yi ak ñi nekkul ay commerçant képp ku dëkk nekk ci dëkk bi di fi yëngu ak loo mën na yëngoo xamal ni liggéey bi du liggéey boo xam ne rek dañaa liggéeyu commerçant yi la commerçant maçon ci eh, mécanicien lu ay ay bijoutier lépp lu waay di def rek woo nañ la ci waaw xeebaluñ kenn tam dara kenn ku ne sa man-man fam toll rek nga ñëwe noona ñu nangul la ko ah soññe bi tam moom ah, di xam ni sunu bàyyi ak sunu maam yi bi ñuy liggéey jumaa ji am na ñoo xam ne dañ daa bay ba noppi la ay jaay seen fas ak ak lépp jox ko seen sëriñ ngir ñu def ko ci ah, te liggéeyal sëñ Tuubaa jógu fi courant naa boo fekkee woon ba ñuy def liggéey jumaa ji ma def ci lii ah, yeneen liggéey yi xam ne ki fi nekkal sëñ tubaab moom la joxe benn kë euh, gënu cee kawe bii te moom moo ci jiitu dégg ngeen ni ko sëñ bu sa wax léegi waaw ndax ginnaaw moom moo njëkk a yónnee fanweeri saaku suukar ak un million ak fukki keesi tàndarma kooku wane na ni yoon waa ngi nañ jox topp ci ah, yeneen liggéey yi nga xam joxoñ na ko nañ ci topp te te góorgóorlu ci bu baax te xam ni loolu lu ci waay def moo dàq loo def ci sa compte banque am na fu mu lay xaar ëllëg foo xam ne boo fa àggee ah da loo loo defan ki da ko xeeb te nag eh, liñ bëgg ñun ñëpp mooy eh, fan wu gudd ak wér ak wërsëg sa dolliku yàlla nañ ko yàlla may waaye nañ nañ bàyyi xel ñun ñëpp dañuy dem ah ku dajale itam ba mu bari nga dem bàyyi fi la fi bàyyi itam xamoo ci yan loxo lay mujj ak nan lay demee demee kon nag dara gënu ci ci sa man sa teew loo man ci jëfal ko ci sëriñ tubaa ak def ko mu jëm ci yo euh, euh, ci li sunu borom digl digle dara gënu ko ci ah ma di ñaan nag kenn ku ne gën a euh, fagaruwaat daal waaw ah, te gën cee jàpp maa ngi sant nag waaye waa daayiratu Muxaddamatul Xidma comme ni ko sëñ Aliou gi waxee bañ ko tàmbalee 2005 ba nëgë ni li ñuy def lépp dafa ñuy leer nañ waxtu bu ne bu nekkee ci koor gi waxtu bu ne dañ may woo sax pour ma ñëw xool fiñ toll liñ def li fi ñëw li liñ liñ dépassé lépp man daf may leer nañ niñ ko defee ci rapport bi noonu la ma leer ni lépp noonu la demee nag loo xam nag comme ni ko sëñ Kab waxee ba ñuy koy soog a soog a tàmbali ci neuf cent et quelques mille lañ lañu amoon booba yaakaar naa ni motuñu woon fan fanweeri nit tayit ñun commerçant yi bañ ko tàmbali ñoo ci jiitu woon ci ci ci ci def gi ah léegi dem nañ ba sëriñ si boo xoolee commission bi jógee ci sëriñ si fii ne trois millions rek lañ leen rawe daaw te bu bu ñu yaxee kat daañ jëm ci suñ kanam kon nag loolu maa ngi ñaan ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax waaw fas yéene gën a dem ca kanam maa ngi sant ñëpp nag di soññ nag jëwriñ ju ne wax sëñ Ousmane Samb ci xayira moom tam mu mu mu mu gën noo jàppale bu baax a baax a baax jërë gën jëf. jërëjëf El Hadj Moussa ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko. Ah, moom nag yaakaar naa pëstéefam mbooloo mépp xam nañ ko ndax dafa bëgg lu baax waaye bëggal ko itam ay mbokki taalibeem ba tax na fu waay nekk day fexe liggéey bi agsi ci yow moo xam dalay woo téléphone moo xam day taal otoom ñëw fa moo xam sax da nga koy jox sa kàddoom rek ne ko man kat defal ma ci nangam mu génn ci alalam defal la ba ba ba ba nga koy ba ba nga koy jekku man loolu xam naa ci lu lu leer a leer kon euh, pëstéef boobu nga xam ne am na ko ci liggéey bi ak taxawaay boobu yàlla ko suñu borom gën a kàttanal Euh, dëgëral ko te nangul ko mbooleem li nga xam ne moom la ciy def sëñ Tuubaa moom kenn du ci def lenn lenn kenn du sonn ci moom di ko réccu kon yàlla buñ ko réccu jërëjëf ñi ngi euh, sant bu baax a baax itam taxawaayu sëriñ Daam Géey Kafe sëñ Daam jàmbaar la lool mbooleem waxuma la li muy jëf ci ñaq boppam waaye mbooleem kafek doom guñ fi indi day wax ne nañ ko indi foofa moo koy defar toppatoo ko ba mu mel ni mu war a mel mu doog ñu koy yónnee nga xam ne ñun segg rek lañ ciy def kon moom itam taxawaay boobu ñu ngi koy rafetlu bu baax te di ko seedeel mbooloo mi nga xam mbooloo mi nga xam ne ñoo fi ñoo fi ñoo fi teew mel na ne daal ñëpp am nañ pasteefu jëf soññee daa mënta ñàkk rek waaye ñëpp am pasteefu jëf kon nag yàlla na yàlla yokk xéewal yi ku ci nekk la nga bëgg jëf nga man koo jëf ci kàttan ndax jàpp naa ne liggéey bi mbooleem ñi fi teew wala ñi koy dégg sax bu ñu sañoon ñoom dong ñoo koy def ci seen poosu bopp loolu moom seen pasteef àgg na fa kon nag buñ ciy soññante dafa mel ne soññe daa mënta ñàkk rek waaye ku nekk xam na ne boo sañoon lépp yaa koy def kon nañ ñaan rek suñu borom yokk xéewal yi euh, yaatal wërsëg yi ba ni ñu ko séenoo ba ku nekk am pas-pasu def ci ñu dem a dem banaan war nañoo mën a sax boole dub duble li ñu daan def def ko ñaari yoon yàlla na ko yàlla def barki Cheikhul Khadim kon dafa mel ne euh, ñu ci kàddu yu mujj yi xam naa sëñ Afe bu jegewoon woon ñaan yu mujj bu ko defee ñaan ndax waxtu wi day waaj a jege mi ngi jéglu bu baax nag ci xëy ñàkk mën a jege ci jataay bi ngir xëy na euh, gàllankoor mi ngi koy jéglu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu bokki taalibe yëpp tey ziyaare tey jéglu te di wax ne daanaka kàddu gi jër woon jël ndax li nga xam ne moo ci matoon leeral lépp ñi seetu woon liggéey bi leeral lañ ko yaakaar naa leeral nañ li ci amoon ci kàddu yu soññ itam kilifa yi jël kàddu ñu ngeen leen di sant leen ngërëm ci seen wax ju façon ak ju pasteefu li ci waroon soññ lépp kon ñoo itam soññ nañ ko kon daanaka suñu kàddu amu ci xanaa ñaan rek suñu borom tabaaraka wa taala ku fi indi itte ku nekk suñu suñu borom wuus la ci barkab Sëriñ Tuubaa defara ci la nga la nga mën ak la nga mëntu te ñàkkoo teewee ànd ak yokk njaboot gu barke liggéey barke ci barke asalaamaaleykum wa rahmatulah wa amin amin amin amin amin amin amin jërëjëf